déedéet déedéet Zarko du ñoom ak aada yow ak aada la wuy ma fii. balaa muy xam ne lu ma wax dama ko gëm mu bàyyi ba la 15 janvier incha allahu rabi dama ne day ñëw si bu ñëw see. day ràmm bu mu jóg. Mamadou Mbaye Mamadou Mbaye. Will Ada Fass. bu ñëwee day ràmm bu mu jóg. Zarko Will Ada Fass. incha allahu rabi. Ada Fass ci boppam. boo ko dee xam ne Ada Fass. boo yaa gën a xam ni làmb ci doo ci am dara dara dara doo ko ci am tus dañ koy indi fii fii dañ lay invité waat yow fii ngay ñëwaat mu neex la mu naqari la di nga ñëwaat fii lu leer laa lay wax ñoo la gën a pare téeméeri ci nu yow tus dañ koy mu neex la mu naqari la dina bu rax njaago duma wax lu ma gëmul yow bu arbitre sifflé sa kanam bii ngay mel ni manakee naa la duma ba nga daw wan la sa papa la xaar nga dof yow yow booy du man sax ak yow booy woo bés ni ki nga bàyyi làmb yow bés ni ki tey bàyyi ngi dégg bés ni ki làmb yow bu yeboo waa Fass nañu préparé le 15 le 16 ñu nangu sa xam ne da ngay bàyyi

yoruloo kanam bu may attaqué yoroo ko kanam bu may attaqué yow yoroo ko. déggoo ma xanaa eh xale la lu ma jël maa ko moom bu mu la jàppee nga xam ne xale bu ndaw la. ma duma la daan la. man Zarko maa la ko wax tey bindal. boo ma jàppee ma dugal ak daal. si yow doo xale. yow doo yow doo yow mënoo daan kenn. liggéey nga may liggéey incha allah rabi yow dëgg la sa bopp. yow doo yow mënoo daan kenn. boo ko dee xale wax wax bi nañ ko jëfee. incha allah rabi yow bàyyi loxo xale la dama ni la eh, dama ni la dama ni la bàyyi loxo xale yow doo xale. yow doo xale. yow xale bi xale xale boo xamante ni da ngay def lu mag ñi dul def. doo xale. noppil. te sa làmmiñ booy. noppil yow sa kërawu tapet bi. sama xale mbay yow si dama immigré. yow boo demee yow sax boo yow yow. yow booy boo xamee baax na yow del wax rek. yow booy. yow booy barki Serigne ma xamoon lay xaar yow. yow del wax rek. yow tey sa làmmiñ mi ngay wax rek di taa. baar bi sifflé. yow del wax rek. bu arbitre bi sifflé li nga xam ne njaago bi nga ko séqal maa la gën a pare téeméeri junni yoon pare koo sax yow yow pare xaajo koo pare yow la gën a pare foofu waaw baax na yaakaar naa ni jàkkaarloo bi en ce moment ñoom ñaar heureusement heureusement ba jàkkaarloo wuñ fii parce que chaleur bii nga xamante ne nii moom moo am ci ñoom ñaar macha allah mbokk yi lu doy waar la Ada Fass ak Zarko ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk pare nga ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk